soppeeku na ab préfet ma dem ba yor Touba suñu tëjee marché Ocass bi kay beneen marché buñ mën a buñ bëgg a tëj dañ lay envoyé SMS rek ne la tëjal sax ñuy ñëw ci yow Touba buñ xasee tëj feneen fuñ bëgg a tëj dañ lay envoyé SMS rek nga tëj kon nañu seetaat suñu bopp li metti na li metti na taalibe yi sonn nañ taalibe yi jaaxle nañ yaru nag akuk taalibe moo leen tey wax moo leen tey génn waaye am nañ lu leen naqari lool lool lool lool lool am nañ lu leen naqari lii ñuy wax ni kenn weddiwut na feebar bi am na wala boog man weddiwuma ko waaye dañ ciy woote loo xam ne bis bu leen ci yàlla wuysee danañ am mbetteel de gàtt nga gàtt nga ñëpp xam na xam na xam nañ xam nañ li muy def kon nañu yërëm nit ñi organiser leen solo leen ay masque ñu dem liggéey nit bu jaamuwul yàlla liggéeyul lu muy defar ci kaw suuf tey ngeen ñoo jaamu yàlla ci mbooloo tey ngeen ñoo liggéey ci mbooloo kon luñ fi defati ñaar yooyu ñu fi indi di tere ngeen ñu ko nan dee lu ñu xaar ci de loolu doo fi nekk di liggéey jaamu yàlla tere ngeen ñu ko ci mbooloo nañu dee ah ñaar yooyu kay moo fi indi ci àdduna ay caaxaan tere na la kon kay dangay ngay dee rek.